Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo di may seen de presse jàngeen jëf ay taw yu métti la ñu nemmeeku ci diwaan yu bëri ci Sénégal réew mi quotidien dikkaat ci njeexital yi nga xamante ne am na ko ca diwaanub Touba yéenekaay bi di xam ne ni kon bilan bi tiis na lool ndax ñaari doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan kenn ki di ab njagamaar yàqu-yàqu yi tamit foo ko natt weesu na ko bu ñu sukkandekoo ci yéenekaay groupe Rewmi network bi ndox mi yàkk na kon ay dëkkuwaay ci bërëb yu bëri wala sax indi fa ay jafe-jafe fu ci mel ni résidence Cheikhul Khadim nga xamante ne ndox bi daanaka nangu na ko laas yéene kay di dëggal bilan bi nekkoon li xew ca Touba ak ndox mu bari bi tax na ba ñaari doomu aadama daal di ci ñàkk seen bakkan ak ay yàqu-yàqu yi tamit yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko fa li xew ca Touba Vox Populi daf ko jàppee ni ab seen de chaos ndax taw bu métti bi ñu fa nemmeeku ba tax ñaari doomu aadama ñàkk ci seen bakkan juróom-ñaar jëlee ci ay gaañu-gaañu yéene bi yokk ci tamit ni lu ëpp téeméer ci ay kër ndox mi jël na leen ay yu bari ñoo tëmb ci ndox mi bokk na ci ndamatu Kër Ñan Touba mosquée ba ci sax guy mbind ak suraax naka noone daaru marnaan ak Mbàkke Touba dund na kon mbënd mu métti bu ñu sukkandikoo ci le quotidien muy yokk ni lu tollu ci téeméer ak ñeent fukki milimètre ci wàllub ndox moom moo fa wàcc ci guddi barki démb ndox mu bëri mi tax kon ba ay kër yu bëri daa di màbb ñaar ci ay doomu aadama ñàkk ci seen bakkan yéene kay ma jàmbal jaan bi xam le ni état bu Sénégal ci boppam noppi na ngir jël ay matukaay yépp ngir xeex lu ni mel mel l'observateur feelu ko ci ne jëwriñ ji ñu dénk wàllu wi ci boppam di Cheikh Tidiane Dieye moo xamle ci kanamu Serigne Mountakha Mbacké ni kon état dina def kéemtulaay kàttanam ba wàññi coonog askan wi foofee ca Touba laata loolu yéeni kaay groupe Futur Média bi di xam ne ni njàkkare dëgg la ñuy dund jamono ji ca diwaanub Touba ndax ndox mu bëri mi ak ay dégâts yi nga xamante ne jur na ko ba ci sax ñaari bakkan yu mu yóbbaale li ndaxu taw bi jur ni ay yàqute moo tax Walf Quotidien gis ni bi moom ca Touba 2010 foofee ca dëkk bu tedd ba ñaari doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan waaye tamit ay yàqu-yàqu yu bëri yu ñu ca nemmeeku source a gis ni jamono ji lu métti la askan wi dëkkee Touba di dund ñu war a dund lu métti kay mooy ñi def ay luuxur ak i njombe ci alalu askan wi réew mi quotidien du ñu xamal ni démb samp nañu pole judiciaire financier bi nga xamante ne kon moo leen war a atte su naataangooy jàpp ni lii ab jéego la bi nga xamante ne moo ñu yóbbu ci li ñu duppee reddition des comptes kii jiite woon ndaje bi ni ki démb di jëriñ ju ñu dénk wàllub yoon Ousmane Diagne ay kàdduwam ci Le Soleil yéenekaay muy xam ne ni kon lii ñu samp pôle bi ci boppam bokk na ci li askan wi yëpp doon sàkku ngir lépp lu jëm ci jëfandikoo seen alal mu daal di leer gannaaw ministre de la justice procureur général bu cour d'appel bu ndakaaru di Mbàkke Fall tamit yëkkati ay kàddu ci biir yéenekaay aan bi muy xam ne ni pol judiciaire financier bi nga xamante ne samp nañ ko waru fi nekk ngir defante maanaam règlement de compte waaye ngir reddition des comptes ci wàllu reddition des comptes boobee Sud Quotidien di ñu xamal ni daal machine bi tàkk na gannaaw lu ñu samp pôle bi nii ki démb ñu toll ci wàññ ci ñaar fukk ak ñett ni ay magistrat yi nga xamante ne kon ñoo ca war a liggéey liggéey bi war a door moo tax bis bi le jour gis ni ñu ñu ci jàmbaaraamu tuuma bu yóbboo ñu pare ñenn ci ñoom dafa mel ni le témoin yéenekaay xam na leen ba noppi yéenekaay bi fësal na tey seen nataal ci xëtam bu njëkk muy ñi nga xamante ne dañ leen a tere génn réew mi bokk na ci Mame Mbaye Niang Mansour Faye Farba Ngom Aliou Sall Antoine Diome Cheikh Oumar Anne Mamour Diallo ba ci Samuel xamante ne moom mooy Gabriel Kane yéenekaay bi njort nii ñoom ñëpp xëy na mën nañoo bokk ci enquête yi enquête yéenekaay wax ci finance publique bu Sénégal te xam le ni budget bi ci boppam mu ngi ci tension bu mag ndax yokkute yokkuteg recette fiscale yi ci premier semestre bu 2024 yéenekaay bi di xam le ni recette non fiscale yi ak externe yi tamit dañu daal di wàcc lool ñu nemmeeku ci jamono jooje yokkute ci ay dépenses ñeel subvention bi ñu jagleel wàllub énergie suñu naataango yi gis ni lii mooy wane ni Sénégal mooy ab bi nga xamante ne koom-koomam daanaka lépp ci impôt la koom bu ñuy dugal ci équipe nationale bu Sénégal ci la Les Échos dikk ni ki tey ji di xam ne ni lu ko dalee ci organisation jongante yi regroupement bi ba ci sax séance d'entraînement bi gaynde yu Sénégal koppar gu tàkku la ñuy jëfandiku li ko waral bokk na ci caution bi nga xamante ne toll na ci benn million fanweer ak juróomi million yi nga xamante ne moom la ñuy loué stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio ministère des sports moom ci jongante bu nekk dina fay lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróomi million hôtel bi di Radisson bi nekk ca Diamniadio nga xamante ne foofu mooy dalukaayu gaynde yi kenn ci gaynde yi Kalidou Koulibaly fës ci xët bu njëkk réew mi sport yéenekaay bi di xam ne ni kon clubam bi di Al Hilal door na ci anam yu mucc ayib Ligue des champions asiatique bi beneen Ligue des champions UEFA ci yéenekaay groupe réew mi network bi ñuy xam ne ni kon Juventus moom daal nay wane boppam ci kanamu PSV Aston Villa mel ni ku demoon doxantu démb ci kanamu Young Boys daan ko ñetti bal ci dara mu ajoon ci bëccëg bu njëkk Ligue des koy wéyal ak jongante bi ci gën a fës bu ñuy xaar diggante Manchester City ak Inter de Milan nga xamante ne moo nekkoon final édition bi wees tey ji Inter di ut nag revanche am waaye yéenekaay bi di xam ne ni kon war naa métti ci moom Ada Fass di dund lu métti jamono ji l'observateur xëy di ñu xamal ni ki tey ji moom mbëru Fass bi dañu ko teg loxo moom ak ki nga xamante ne moom mooy Pokola ndax ci ab coow lañ leen fekk ci ab baar bi nekk ca Médina gannaaw ba ko police auditionné ñu war ko yóbbu ci kanamu procureur